yi jëmale fële ca Europe daañu ko waxtaanee ak ki nga xamante ni rek moom mooy euh, Boubacar Seye nekk njiitu Horizon Sans Frontières ak Boubacar sey tamit daañu waxtaanee lu soxal euh, dundu sénégalais ci diaspora bi ci jamonoy Covid dix bi lee naka la ñu dundee euh, crise sanitaire bi ci bitim réew rawatina ak deuxième vague bi lee ñuy laam-laame ak yeneen i ponk yoo xam ni soxal na actualité bi ak tamit milliards yu bari nga xamante Union européenne daf koy faral. Sénégal di jox suñu réew yi euh, ngir rek xeex li nga xamante ni moom mooy immigration clandestine ponk yi lee daañu ko waxtaane ak Boubacar Seye nekk njiitu Horizon sans frontières ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. waa kay ba maa ngi lay maa ngi lay nuyu di nuyu auditeur réew mi FM yëpp. Mm. di nuyu képp koo xam ne aussi yaa ngi ci biir Sénégal wala bitim réew. voilà di ñaan mu nekk aussi une très bonne émission. voilà tey jii Boubacar Seye laaj bu njëkk sax bu ñu lay laaj moom mooy euh, comment se porte Horizon sans frontières sa ONG bi nga xamante ni yaa ko jiite. bon Horizon sans frontières euh, mu ngi continuer son petit bonhomme de chemin voilà donc euh, xam nga ñu yàkkamtiwuñu. te te samp dafa metti surtout samp nit ku ñuul mais ñu ngi ciy sant yàlla parce que tey je crois que sur les thématiques de la migration donc euh, ci àddina bi foog na amul fenn fuñ ciy waxati immigration te boole wuñ ci horizon sans frontière loolu sant yàlla. kon seen xeex tey la gën a tey la gën a taxaw tey la gën a dëggu. ah ñu xeex de wax dëgg yàlla xanaa je je euh, je te laisse juger. Mhm. mais tey soo soo dégloo RFI dégg ñu ci. Mhm. nga déglu France Info dégg ñu ci. Mhm. semaine bi ñaari yoon BBC jël nañu sur les thématiques de la migration. Mm-hmm. soo dégloo voix Africa numéro un déglu soo dégloo la voix de l'Amérique déglu waxuma la nag les chercheurs yi may yi may recevoir wala ay européens sax yuy def seen thèse en migration di ñëw fii ci ñun mm-hmm. kon je crois que loolu sant yàlla la wala leneen li ci des nag mooy mooy la may wax rek horizon sans frontière doole te te doole moom yàlla moo koy rek mm-hmm. te yàkkamtuñ ko donc nank-nank rek la ñuy def ba samp ko fu nekk ci àddina bi voilà waaw mais Boubacar foo jëlee ay ay ay koppar ak crise bi ni mu méttee pour mën a def say activité comment ça se passe non mais mais koppar koppar amu fi yow tamit horizon sans frontière amul koppar mhm. xam nga fu ñu doon xaar koppar waaw dañu mos a commencé mhm. li sacerdoce la mhm. euh, conviction la mais soo dee xaar koppar la preuve ne que horizon sans frontière a réussi beaucoup de choses te mosul am financement xam nga loolu ñu bëri mënuñu ko gëm donc loolu moo am loolu conviction la voilà loolu conviction la donc xaaruñu koppar. Mm. koppar mu sutee am. bañ koy samp man nee naa la Afrique sax laa xamee ni. Mm-hmm. Euh, organisation yi dañ leen di financer. Mm. et il a fallu que ñu ñëw Afrique difficulté yi taxaw nit ñi nii non il faut mettre des projets pour chercher des financements. mais ah. tey ce qu'il faut retenir c'est que. Mm-hmm. le monde est pratiquement c'est des lobbies qui dirigent le monde. tey pour nga am xaalis ñun ci li ñuy def dafay yomb parce que lu nekk laay gis je vois toutes sortes de propositions mais dama wax ni nous sommes équidistants des lobbies et des groupes de pression dans le choix de leur politique et leur déclinaison sur le champ social parce que ki lay jox xaalis souvent li mu li mu bëgg nga koy defal mm-hmm. voilà ñun aussi loolu du suñu objectif donc euh, euh, li ñu am mooy des projets uniquement sur l'immigration loolu la ñuy wax lépp loo xam ne immigration la euh, co-développement la mhm. ñu ngi ci loolu la ñuy wax képp kuy jàpp tamit ci lool ngay jàpp mais mënuñu génn foofu parce que dañu soxla xaay dugg ci leneen wala keneen di ñu ñëw di ñu def ay proposition yoo xam ni pour ñun ñu waxal ko loo xam ni bokkul suñu domaine de prédiction loolu aussi c'est important que je le je le je le. je le précise mais naka gisee Boubacar yeneen ONG yi nga xamante ni ñu ngi fi di yëngatu ci wàllum émigration mais li nga wax ni yow moom ngay bañ moo loolu moo leen di dundal te bari nañ fi. ah waaw gis-gis nga ci am yow bari nañ fi loolu bari nañ fi mais xam nga ku nekk ak sa sa conviction ñun bi ñu samp li dañu wax éthique de conviction et éthique de responsabilité. Euh, damay ñaan yàlla toujours xam nga nit ñi kenn mënu leen nax. Mm-hmm. moo tax euh, tey yaa ngi ma woo xam nga avant ngay ñëw fii tey mënuma ma la wax ñaata nit laa recevoir. Mm-hmm. ñooñu woowu ma leen pour ñu ñëw ci man. Mm-hmm. kon damay ñaan yàlla continuer ci yoon wu jub damay ñaan yoon bi yàlla bu ma ci kenn yedd ndax xaalis métti na métti koo xam ne nag yow xam nga lu bëri. parce ba ñu xamante yàgg na. dëgg la. mais je crois que tey amul lenn loo xam ne tey mën nañu taxaw. diñ ko horizon sans frontière concrètement leneen lu ñuy def nag li olof Njaay naan naan lu waaye def sa bopp mais ñun ci yoon wu jub la bëgg ni dugg te te te te li ñuy def nii tamit yàkkamti wuñ parce que du ñu yàkkamti ba naan petit moo tax ba ñëwee Sénégal ba léegi chaque jour di nga gis ñett wala ñeenti nit ñu jël seen téléphone hmm. woo di ñu ñaanal ci li ñuy def loolu rek reconnaissance sociale la te du leen xam maintenant nag soxla xaalis mu jaral la nga dugg ci loo xam ni ëllëg bu subaa euh, l'histoire retiendra autre chose. Mhm. man personnellement euh, du ma ko d' accord au niveau sans frontière moo tax gis nañ ku nekk gis nga gis nga Sénégal xam na ki mu xam. Mhm. kiy génn télé. xam nga soo xoolee. waaw télévision boo tourné di nga ma ci gis bu ci kanamee léegi di nga ma gis ci télévision. dëgg la dëgg la ak donc euh, bu ma paree mille personnes vont m'envoyer le curriculum. parce que dañu bëgg liggéey ak man bañu ma ko mais dama leen di wax toujours. le langage de la vérité ñaanal leen mu yaatu ba ñëpp xaj ni mhm. parce que sinon rek dañuy nekk comme nit ñi di naxaate te man du ma naxaate donc lii mhm. dañ ko def pour jàppale doomu aadama yi mais mënoo fexe ba ma wax la ci wala ma dig dig la ci loo xam ni dëggul dëkk ça je le refuse catégoriquement képp ku jaar horizon sans frontière xam nga ko mhm. képp ku woote horizon sans frontière tamit ce langage là laa lay wax parce que su ma ko defee maa ngi nax nit ñi te waruma waruma nax nit ñi moo tax lu muy metti metti rek ku fi ñëw na dégg dëgg buy dem dëgg buy dem buy ñëw fekk fi dëgg buy dem dégg fi dëgg. mais fan yi Boubacar Seye nee na njiitu réewu Sénégal daf la dalaloon est-ce que mën nga si ñëwaat ak ñun. <laughs> non non non non njiitu réew mi dalaluma c'est-à-dire que bi ma ko déggee sax. ah am na ay euh, rumeur de ay photo yu ñu affiché si réseaux sociaux yi. non non non loolu moom Boubacar Seye kon nag moom soo ko amee nekk ba yónnee ma léegi. a ah, am na ñuy si eh, réseaux sociaux yi de. dégg nga wan ma ko rek waaw ma expliqué la rek. même même euh, Ansoumana Ansoumana Dione. Euh, waaw jiitu Assane waaw moom ci boppam dama nekk man ak Amsatou Sow Sidibé. Mm-hmm. waaw. ak ak professeur Malick mm-hmm. am benn waxtaan bu ñu woo. Mm-hmm. ma toog ba si àgg Amsatou Sidibé euh, jël téléphone am ma affaire bi. Mm-hmm. Eh, dama tëb sax ni ko. wan la loolu li may wax nii. waaw wan ma li ma wax ma mu ne mu ne Boubacar Seye est en ce moment reçu au palais. Mm-hmm. Euh, dama tëb sax ni ko man mais après euh, boo liiree c'est Ansoumana moo ko bind. Mm-hmm. Euh, bi ma yónnee affaire bi sama WhatsApp Ansoumana dafa nii. Boubacar Seye ak ak ak nu mu tëdd ak Ansoumana Dione liggéey bi ñuy liggéey. waaw respectivement ku nekk sa domaine. Mhm. war mérité nañu ñu recevoir leen palais. Mhm. parce que palais bi ay politiciens lañu fay recevoir te ñun ñu ngi liggéey Sénégal boo liiree moom loolu la bind. mais ni ko bindee ni ko bindee man yëgaluma ko. Mhm. parce que su ma ko yëgaloon sax du ci def sama tur. waaw. Euh, euh, mais mais ni ñu ko bindee aussi xëy na moom moo xam li tax mu bindee ko noonu xëy na pour journaliste yi daal ko titré. mais quand vous écrivez Boubacar Seye est en ce moment-là reçu au palais. voilà exactement alors que yow da nga bëggoon bind devrait être reçu au palais ou bien Macky devrait recevoir Boubacar Seye. Mhm. loolu dafa erreur. ça pose problème. voilà moom noonu la bindee moo tax soo lire bi di nga comprendre mais peut-être moom moo ko tey ci titre bi. pour gën a attirer attention nit ñi mais est-ce que yow Boubacar jéemoo Moussa ut audience toog ak njiitu réew mi waxtaan ak moom ci affaire problème immigration loolu laa xalaat bi ñu koy def mais je ne suis pas reçu Euh, pour mu leer quoi. pour mu leer euh, mais nag nit ñi mos aussi il y a deux ans may animé benn conférence. Mm-hmm. Euh, Seydou Gassama sax moo ma joxoon conférence boobu ma koy animé maison de la presse. rek mm-hmm. benn waay jóge fële ni moom ay Boubacar toi aussi tu tu n'as pas besoin de partir au palais. Mm-hmm. dama ñëw sa bureau ñu ne ma ñu ne ma ñu ne ma ñu ne ma yaa ngi palais ñu lay recevoir. bu ñu rendee compte man dama sax tiit ma ni ko mais. yow est-ce que ñu pour wax la ni nit ñi souvent dañuy wax rek man je ne suis pas Euh, vraiment mu leer ko ma profité aussi di ko leeral si émission bi wallaay lazim on m'a pas reçu au palais. waaw mais ba tey ji yow normalement sénégalais nga comme sénégalais am na benn cause booy défendre. Euh, pourquoi pas ñu euh, président Sall recevoir Boubacar Seye waxtaan ak moom. waaw mais président xam nga kay ma nettali benn. wala yow soxlawoo loolu. non dafa nànk sénégalais laa comme ñëpp dama la wax ni le au dañ may invité dugal ma ci avion. Mm-hmm. boole maak ay ministres yu toog ñuy waxtaan sur la migration lo ba ba ba ñu ma taxawee ne ji taw di waxee mm-hmm. l' agence de presse marocaine daf may yónnee ay message chaque saa bu roi bi waxee ba démb daf ma ni li Donald Trump wax ci ci Maroc dañu bëgg nga réagir c' est le directeur de l' agence de presse marocaine boobu ngeen léegi ma yónnee la pour ma réagir kon loolu su ma ko defalee Maroc wala keneen mais pourquoi pas sama dëkk man je de migration am ci àddina bi dañ may woo ni ma waxal mais tey jii man ma nekk sénégalais Mhm. alors duy dox cause bi mais pourquoi suñ ma woowee laaj ma sama xalaat bi ma ko def man je ne suis pas au contre xam na nguur yàlla moo ko moom mhm. jële ko nit jox ko nit Macky Sall yàlla moo ko jox nguur yàlla moo bindoon ni de telle date à telle date dina diriger Sénégal mhm. nguur googu man mënuma ko ko bañal parce que yàlla mooy mooy mooy mooy jël nguur jox ko doomu adama seulement dafa am loo xam ni man d'accorduma ci ni ñuy doxalee surtout sur ce dossier migratoire là ni ñuy doxalee sur des questions de mauvaise de gouvernance et autres là loolu am naa droit en tant que citoyen ni man ba gis-gis la am mhm. mais du ma contre nguur du ma yéene tamit nit lu bon parce que damay wax ni yéene Macky Sall mu échoué mooy yéene Sénégal di dem parce que instant bi ko yàlla joxe nguur gi man dama wax ni dañ ko war a jàppale pour mu avancer pour le bien du Sénégal boo xoolee si si si si si immigration clandestine bi wax naa ko bër ko dem mais naan il faut arrêter les divergences euh, politiques mm -hmm. taire les intérêts irrationnels et leur instrumentalisation politique dama woote dem l'union sacrée de de de de toutes les forces de ce pays parce que tey c'est la jeunesse que nous avons en commun mooy dee kon tey war nañu mën a taxaw dans une démarche participative teg des solutions man ci loolu laa waxee ni nañu nañu nañu teg nu mu tëddi na na na am une union sacrée autour du chef de l'État kuy wax loolu du comme seulement mënu ma fi nekk bis bu nekk aussi ñu yore discours bi ñu yëre dossier bi foog ni man dama soxla seen bos ñoom ils cherchent des ennemis pour le chef de l'État Boubacar Seye ci la bokk mënu ma fi nekk aussi bis buñ ma waxee may may buñ ma tamee dëmb may donner des explications man Seye laa sant ci dëkk bi laa def gis nga su ma dee politique damay samp sama dënn devant tout le monde wax et ça c'est clair. Mm -hmm. maintenant le président de la République euh, moo la gën a xam Boubacar Sèye parce que euh, vendredi bële passé maanaam Macky Sall rek ñoo wax bi RFI moom moo wax après man RFI ma y a des y a là une des journaux souvent da ngay gis man dañ ma ciy gis. Mhm. donc man mënuma dox li ñoom xamuñu li may dox c'est pas vrai maintenant bis mu buggee ni daf ma soxla ni ma dafa bëgg a waxtaan ak yow ma wax ko man li ma xalaat je donne des propositions par rapport à dëkk bi par rapport à l'ère et par rapport à toutes les problématiques liées à l'immigration. mais mais mais ñoom leur gestion c'est du verrouillage politique ku ci bokkul bokkoo ci man nag lu ma taxaw naan Boubacar tey euh, dañ dañ ma war a recevoir au palais moi je ne demande rien bi ma ñëwee Sénégal yëglu naa am na ay manifestations yu ma def mais pas plus tard daaw sur le plan euh, euh, géopolitique le prix géopolitique bi ñu teg moom mooy le prix immigration paix et sécurité Cheikh Mourtada Khadimou Rassoul mais yónnee naa ko lettre ñaan leen audience mais mais mais mais mais mais dafa am ñoo xam ni yow li ngay dox du ñu bëgg mu dox mais man du ma fi nekk nag nan recevoir leen ma au palais parce que man waruma poste am naa poste encore une fois euh, vendredi bële passé c'est le ministère de l'emploi qui nous appelle à Diamniadio mm-hmm. sur les thématiques de la migration dégg nga mbëkk mi Maodo Malick Mbaye bu Anamo bi mu ñëwee dafa sama wet la toog nuyu ma ñu waxtaan mu ne ma Boubacar mais j'ai jamais ci biir état bi sax y a des choses très honnêtes mais daf ma ñu Boubacar tu as tout dit amul xam nga ñun kay xëy na ñun ñoo nangu te déglu moo tax il faut que ñu xoolaat suñu communication mais wax ma lépp. dëgg la man personnellement première occasion bu may am ak chef de état bi dama ko naan wool Boubacar ngeen waxtaan parce que Maodo Malick Mbaye baax. barki démb damay dugg seen kii bi Zator Mbaye laa nga leen man xaw ma ko mu ne ma ki fait un excellent travail dans ce pays là nous sommes tous fiers bi ma laajtee kii mooy kan kii de am na fu ma ko xàmmee mooy Zator Mbaye donc pour wax la ni dëkk bi am na ñoo xam ni vraiment euh, ràññee nañu je crois am na loo xam ne su ma ko doon dox yow doo ma invité sa que je crois que sa émission bi mhm. miin ma jëlaat dama dama foog ni bëgg nga mu nekk aussi une émission d' excellence bu nit ñi di dëgg la mosoo ma dégg ma wax ci lu dul Sénégal mais est-ce que je dois me euh, parce que Sénégal ku wax ñu ne dafay wut poste man wëruma poste ay kumba mhm. bu ma doon wër poste am naa ko nit ñi kenn na leen nax damay dem milité ji mais je ne suis pas horizon sans frontière laay dox moo sama ko maa ko samp indi ko Afrique di ko xeex ba mu toll fii nag tey moo tax gisoo lu lu sotti am borom am na ñoo xam ne bu ñu may présenté dañ may présenté comme le coordinateur en Afrique je ne suis pas le coordinateur en Afrique il y a un coordinateur. Mm-hmm. je suis le président fondateur maa ko sama di ko xeex avec dignité et abnégation. Mm-hmm. ak xam-xam euh, ba nga xam ni tey caaxal lan ko ba nga xam ni luñ ci wax tey téere lay nekk loolu nag lu ko jox liggéey dañuy liggéey matin soir amul noppaliku je suis chercheur damay gëstu sur cette thématique loolu moo tax euh, ay dëkk sax dañuy ñëw. fii mm-hmm. ci man quand ils font les laaj ma loo ci xalaat ci Madagascar daaw mm-hmm. donc lii rek la demee ndey kumba d'accord léegi euh, Boubacar ñu laaj la en passant sànq sax yaa ngi koy évoqué di annonce su normalisation relation entre Maroc ak Israël yow ban jàngal nga ci am su ma sañoon nga posé ma rek ci ci parce que bugguma di wax loo xam ni. Mhm. Euh, euh, gëstu ko lu bëri. waaw euh, même même le directeur de de de ma répondre ma ko parce que fan yële passé effectivement nee woon nee na ma. Israël Polisario mu ngi ñuy attaqué. et mhm. on a besoin de ta réaction parce que il faut que ma maîtriser li may wax doog ci wax. Mhm. door si door si wax gëstu. voilà non du wax loo xam ni après bugguma xam nga am na koy toll. am na yenn erreur yoo xam ni war a toog def. moo tax lépp lu may wax rek day nekk lu ma togg ba mu ñor ñetti yoon a ngi nii mu may interroger mais wóor na yàlla mail yaa ngi mais je ne parce que dama bëgg la may wax mu nekk loo xam ni day nekk dëgg kenn du ci teg baat. Mm-hmm. Euh, lépp lu mën ci am nag comme conflit ñun horizon sans frontière mënul lu dul lien de concorde entre les que dox jàmm. Mm-hmm. dem ci addina bi lépp loo xam ni day day day day day defar ñun loolu ñu ngi ci ñun loolu la ñuy dox que ça soit. Polisario que soit l'Algérie que soit soit le Maroc a keneen ak keneen ku mu nekk ci àddina dama jàpp ni tey l'Afrique c'est c'est en Afrique c'est l'occasion de de de de de de faire en sorte que ces conflits-là dootul amati parce que les défis qui nous attendent sont grands gis nga l'immigration clandestine mu ngi nii toute la jeunesse africaine la création d'emplois tey war na un défi africain euh, la résiliation de nos économies la préservation de nos ressources naturelles en vue de lutter contre l'extrême pauvreté yooyu yëpp tey war na nekk un défi ba nga xam ni tey man li may wax ci horizon sans frontières loolu moo tax ñu développons le triptyque immigration paix et sécurité pour jàmm ci àddina donc dama jàpp ni Afrique tey war na mën a teg euh, une convergence sociale une architecture de paix et de sécurité entre les peuples pour un développement humain durable loolu voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii euh, Ndeye Comba Moreau dalal euh, njiitu Horizon Sans Frontières euh, di Boubacar Seye Boubacar Seye ñu laaj la ci immigration clandestine daañu continuer di ci wax parce que ba léegi solution amul te gis nañ ni battaaral dafa am ci côté autorité étatique tigi tey jii sax déjà dañ lay laaj ci wàllum immigration clandestine maanaam xale yiy jël loo cooy gaal yi pour dem fële ci Europe. boof ñu bari di des ci géej gi euh, déjà pour yow si sa jàngat lan moo ko waral. waaw xam nga boo jële dëkk bu mel ni Sénégal pour ñu camper débat bi au Sénégal. Mhm. Euh, la migration est économique parce que tey ñaari migration mu am la migration pour des raisons forcées et la migration économique euh, migration économique c'est le cas du Sénégal tey euh, jii les li tax tey nit di tukki dëkk bu mel ni Sénégal muy ndóol doon donc la cause principale c'est l'extrême pauvreté euh, li tax nit di tukki mooy xëyum xale yi le chômage endémique chronique et structurel des jeunes li tax nit di tukki tey les causes de la mauvaise gouvernance les quarts du manche de la mauvaise gouvernance bi nga xam ni dafay fàtt les perspectives d'épanouissement des couches les plus vulnérables tey mu am une nouvelle donne bi nga xam ne tey dafa indi une intensification de cette pluie là mooy l'arrivée des pêcheurs mooy nappkat yi parce que tey la mauvaise gouvernance dafa toucher le secteur de la pêche ba nga xam ne ces pêcheurs là euh, dem nañu ba nga xam ne ak accords yi ñu wax moo am avec l'Union européenne et la Chine ces pêcheurs là dem nañu ba nga xam ne mënatuñu dund ci seen métier ba tax na tey ñu jël gaal bàyyi les côtes poissonneuses pour une immigration aléatoire vers l'Europe donc dañu wax ni la zone économique exclusive a été bradée dañu wax ni euh, la pêche industrielle intensive dafa dem ba écraser cette pêche artisanale au point que ñoom tey amatul yaakaar donc li tax tey li am tey mooy tout simplement espoir bi nga xam ni amatul le désespoir total bi nga xam ni tey ndóol moo ko lal dem nañ ba nga xam ni dëkk bi euh, damay wax ni benn am-am moo fi am mooy ndóol mooy ñàkk loolu c'est les causes économiques mm. maintenant au-delà de ces causes économiques dafa am des causes socio-culturelles. parce que dañu nekk ci dëkk boo xam ni euh, dañu bëri pesanteur socio-culturelle dañu bëri des pesanteurs socio-économiques euh, la notion de tête la notion de am-am qui crée des inégalités sociales buy indi une exclusion sociale buy indi une mort sociale lu mu am ngay dégg lu mu la jox ngay dégg lu muy dawal ngay dégg loolu rek ngay dégg ci dëkk bi dañu dem ba nga xam ni tey am am dañ ko mettre au-delà de l'être qui l'incarnation des valeurs intrinsèques dëkk bu mel noonu nag on va vers l'aliénation loolu moo loolu cause socioculturelle la boo xoolee tey euh, xoolal les réseaux sociaux ban promotion moo fi am tey ay ay mariage à hauteur de millions lan moo fi am tey ay may bu njëkk ay warugal yoo xam ni tey euh, l'esprit le plus vulnérable su dafu nànk danaan man de balaa may sëy tey ñu defal ma lii kon tey boo dafu nànk mhm. euh, kon boo xoolee teg nañ ko foo xam ne sax boo defee gisal le nombre de divorces dans ce pays là parce que lépp ci am am la. Mm. gëmatuñ ne yàlla mooy maye. nit mooy maye nit mooy defal yooyu yëpp ay présenté la yoo xam ni nañ ko xoolaat parce que même feuille yi sax dañuy wax ni euh, man man d'accorduma ci nga yore ko yàlla moo yore nit moo tax gisoo sëy boo fi takk bu waaju amatul dara ginnaaw suba sëy di takk mm-hmm. parce que ci noonu lañ ko formaté la société a été formatée ci am am ba nga xam ni tey pour ñu mën ko saafara dans les perspectives de solution li ci ëpp solo mooy xoolaat nos pesanteurs ma tax ni horizon sans frontières man dama wax ni il faut mu am une révolution socioculturelle il faut mu am une révolution épistémologique pour un changement de paradigme il faut mu am une relecture des perspectives avec des outils d'aide à la prise de décision pour que nit ñi xam ñooy ñan parce que soo xamul yaay kan doo xam doo gëm sa bopp euh, il faut revoir tout le système éducatif. Il faudrait un nouveau contrat social. Il faudrait un nouvel beneen modèle économique qui va absorber toutes ces problématiques-là. loolu mooy des défis au Sénégal parce que suñ ko deful rek euh, on a on a beau parler de création d'emploi d'employabilité mais tant qu'on règle pas nos pesanteurs sociaux et culturels nit ñi delloo seen bopp ci yàlla xam ni yàlla mooy may nit ñi xam ni dafa une relation linéaire entre liggéey ak am-am parce que Rewmi FM boobu ngeen toog tëbul tëb rek mu nekk réew FM bâtiment dañuy fondement di yéegal di defar ba mu yéeg mais cette relation linéaire là a été défroquée au Sénégal ba nga xam ni nit ñi gëmatul ne liggéey moo dina la may dara parce que comme ni ko nit ñi di waxee Sénégal rek dañu wax ni xaalis dañ koy lijjanti ñun kat ñu nekkee si naaj bi politicien baa ngi ni deful dara bu subaa ñu ne moom moom lii yëpp seeni doom du tukki ñun loolu la xale yi di wax donc loolu il faut que tey ñu toggaat société bi ba nga xam ni nit ñi gëm ni non seulement yàlla mooy maye mais il y a une relation linéaire entre liggéey ak am-am et pour cela maintenant il faudrait revoir le modèle de société bi ñu am il faudrait tout tout aussi mettre tout le monde dans une dynamique de travail moo tax ma ni la tey nous devons entamer la grille de réflexion d'un Sénégal post-coronavirus boo xam ne li koy lal mooy l'expertise gëm yàlla ragal yàlla ak justice social parce que lii yëpp aussi boo xoolee c'est une accumulation de beaucoup d'années d'injustice sociale et de mauvaise gouvernance loolu moo indi cette explosion sociale ba nga xam ni nit ñi gëmatuñu mën nañu tekki ba nga xam ni tey nit ñi li am tey dafay ça ressemble à un déménagement du peuple sénégalais vers là où l'on pense la misère moins pénible tey dafa ñuróog benn course de pirogue vers l'Europe loolu je crois que ça doit nous pousser à une prise de conscience li am ni gàcce la ay doomu sénégalais yi dugg ci ay gaal fu ñu egg ñu ne leen déedéet du foofu je crois que loolu waroon na mën a indi tey un orgueil sénégalais pour ñu xoolaat suñu bopp xam ni kat l'avenir du pays là c'est entre les mains des fils de ce pays là mais su ñëpp toxoo dem bàyyi ci dëkk bi ñeneen nit ñoo ñëw jël li fi nekk il faudrait qu'il rappeler que que le Sénégal fait l'objet de beaucoup de convoitises. Et nous entrons dans une nouvelle ère géopolitique avec la découverte des hydrocarbures. kon il faut ñu yore dëkk bi xoolaat seen tërëli euh, d'accord ni il y a des failles dans la communication d'accord ni il y a des failles dans le mode de gestion bañ a nekk dans une posture d'autosatisfaction et d'autodéfense parce que bi mbir mi commencé dama ni toutes les responsabilités sont collectives boo wëree boo defee un survol des migrations internationales toutes les théories dañuy imputer une part de responsabilité à une frange de la population kon nous sommes tous responsables comme nous sommes tous responsables nag ñan toog waxtaan pour mën a saafara mbir mi lii mooy posture Horizon sans frontières léegi euh, dinañ la laaj parce que bu fekkente ni ndaw yi nga am jël nañ gaal yi am na ñuy des ci géej gi am na ñuy yegg mais ñoo ñu di yegg souvent Espagne euh, mm. lan lan la ñuy def foofu naka lañ leen di def dañ leen di utal ay këyit dañuy des Espagne lu ñu fay liggéey souvent comment ça se passe procédure voilà. ñi nga xamante voilà. ni ñoom jot nañu yegg c'est une très mm-hmm. profiter pour wax ni euh, gis nga dafa am benn thèse bu doon circuler keroog naan Euh, xale yi dañuy dem parce que ñi dee ci Covid bi en Europe dafa bëri. Mhm. te Europe dafa soxla main d'œuvre. exactement day répondre question bi nga ma posé nii. Mhm. gis nga euh, non seulement ñi dee ci Covid bi ay mag lañu c'était pas une population active. Mhm. kon ñooñu euh, déjà thèse boobu ce n'est plus valable. Europe bu soxla woon ay main comme ni ko thèse bi waxee. kon xale yi dundee ci géej gi day yombal visa yi day yombal lépp moo tax dinaa dugg tout à l'heure la responsabilité européenne sur ce li am nii. Mhm. mais tey pour répondre yow sa question dama lay leeral rek nii. waaw pour mu leer ñu euh, xam mhm. xale yi dañ leen di delloo si ñoom lépp l'Europe est formelle là-dessus gis ministre espagnol bi sax wax na ko. Mhm. Euh, dafa leer euh, waxuma la ko dugg gaal dafa ni képp koo xam ni gaal nga jël pour dugg Europe Espagne. dinañ la delloo si nous sommes formels là-dessus en accord avec le Sénégal et dans les règles de l'art mm-hmm. ñoom ñëpp dañ leen di si Europe yokk ci ni fan yële passé boo xoolee les Européens ñu ngi doon werante parce que euh, la répartition de ces réfugiés là dafa nekk un sujet de discorde en Europe je parle de réfugiés parce que ñoom ñëpp bu ñu demee le statut de réfugié Sénégal da daf déjà mm-hmm. parce que le migrant sénégalais il est économique il n'est par la Convention Genève de 1951 ni par le pacte européen sur l'immigration et le kon moom dañ koy delloosi léegi Europe ni képp koo xam ni moom ko sax du ko gaalee dafa ni képp koo xam ni amoo kayit Europe nekk migrant économique nan la jël delloo la fa nga jóge woon pour lutter contre le populisme parce que tey européens yi am nañu leneen lu leen dal ñu jaaxal leen mooy nan lañuy fexee ba xeex avec Covid bi ba nga xam ni tey seen i économie dinañ ko mën a ils ont lancé nañu un plan de relance de cent cinquante milliards d'euros est-ce que vous comprenez donc ñoom loolu mooy seen problème hmm. donc l'Europe ne peut pas prendre hein en charge la jeunesse africaine loolu moo tax bi coow li amee Espagne keroog hmm. les îles Canaries débordées Europe dafa wàññi loxo l'Espagne. waaw ni ko da ngay dem régler problème bi balaa mu indi coow fii entre ñun suñu biir parce que coow li déjà rek doy na. Mhm. te tal leneen lañ tal moo tax kooku daal di ñëw li mu wax c'est donc euh, xale yi suñu demee gis nga la preuve en est que j'en profite pour parler gis nga lakk bi am. waaw Barcelone mbir dem. Mhm. ñi fa nekk ñëpp mooy ñuy duggoon ci ay gaal année yi passé non seulement amuñu këy mais dans des situations précaires mais ñi ci bëri xamuñu woon mënuñ ci noo dellusiwaat Sénégal parce que Sénégal dafa bëri pesanteur y' a y' a beaucoup pression au niveau des familles da ngay excité Europe ñu lay woo naan la kër gi ñu ngi koy jaay. waaw sa jabar naan la cheveux cheveux yi ñëw. waaw cent mille deux cent mille waaw. parce que quand on achète des cheveux il y a un problème. Mhm. moo tax il faut que ñun ñu xoolaat suñu bopp gis nga Afrique dafa war a xoolaat boppam on nous fait croire dañu war a xees ñu jël ay produits di ko diwoo on il faut pour ñu mën a gëm suñu bopp il faut revoir le système éducatif parce que tey. Mhm. Euh, nous avons un problème nous avons une jeunesse internationale avec un degré de pénétration mobile supérieur à 60 pour cent lépp lu xew ci àddina bi xam nañ ko et maintenant avec un système éducatif mal orienté mais ça crée des des imaginaires migratoires et des odyssées périlleuses. il faut ko ñu a suñu bopp. kon daal maanaam lu ñu mën a dégg Boubacar mooy euh, actuellement ñiy dem nii amuñ benn chance pour waa Espagne accueillir leen comme ni mu ko daan. non mais Espagne dafa mu wax dafa leer ministre bi li mu wax dafa leer Espagne mënu ko. man Espagne amatul fu leen dugal waaw. Mhm. non amuñu fu mu leen dugal parce que l' a été l' économie a été écrasée par le Covid 19. nous avons un taux de chômage supérieur à plus de quinze et quelques mm-hmm. pour cent. ci yu gën a rëy la bokk. donc Europe moo amul cette capacité là ni dem dafay jël en charge gis nga boo demee France en juin deux mille vingt dix pense il y a eu six mille six millions six cent mille chômeurs. Mm-hmm. le taux de chômage en France est projeté à onze cinq en février deux mille vingt quatre. ñooñu ñooñu tellement la leen dudul di jël en charge la jeunesse africaine. mais ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ah, ñi ñi ñi jot a am statut réfugié ñu xam ne dëkk bi ñu jógee am na guerre wala am na instabilité comment ça se passe procédure boobu. mais mais mais mais les les statuts de réfugié là nan nga koy amee. parce que parce que léegi européens yi kenn mënatu leen nax kenn mënatu leen nax parce que pour nga xam nga xam nga ñaata demande euh, pour ma jox la un peu de statistique en deux l'Europe a reçu. cent quatorze mille deux cent demandes de protection internationale. Mhm. xam nga ñaata la ñu na ñaata la ñu accordé hein deux cent quatre vingt quinze mille huit cent. Mhm. donc mooy quarante et un pour cent matul sax cinquante pour cent des domaines. Mhm. ñu ci bëri mooy mooy ñu bëri ñu jóge ci dëkk yi am xeex yi. parce que les Européens ont décrété des systèmes pour. boo nee réfugié nga ñu jàpp la xam nga sénégalais yi dañ doon ñëw wax ni bon voilà man góor jigéen laa je suis persécuté. Mhm. ñu ne la d' accord dañ lay dugal ci benn centre ñu ne voilà am nga am nga Facebook nga ni waaw ñu ne la dugal. xam nga xam nga un un un góor jigéen un gay. oui mais un gay boo xoolee Facebook am di ci gis ay page gay. exactement. ñu xom ko ba xam yow waaw parce que ñu bëri doon nañ jël statut boobu góor jigéen laa sama dëkk ainsi de suite waaw mais l'Europe a compris que c'était ay naxaate la woon moo tax kenn mënul continuer di nax nit ñi le migrant sénégalais ma leeral ko sa émission bi mm-hmm. ne peut pas bénéficier du droit d'asile loolu moo tax dans les perspectives de solution mani dans la gestion de ces crises migratoires là il faut que l'Europe mu xoolaat boppam dinaa dugg suñu futa bi may les responsabilités européennes tey dëkk bu mel ni Afrique xam nga tey Afrique on n'en parle pas le sujet est tabou les Africains wóolantewuñu seen biir l'Europe parle <coughs> excusez-moi l'Europe parle de façon organisée mais l'Afrique parle de façon dispersée tey dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ni c'est un pays ambulant théorie yëpp dafa génn Sénégal La migration est une pathologie dans notre pays-là. Donc l'État du Sénégal devrait faire avancer la réflexion sur ce que devrait être la prise en charge de ces flux migratoires dans un monde mondialisé. waroon nañu mën a dem sur ce qu'on appelle des réformes du droit d'asile waroon nañu mën a xeex tey contre le paradoxe libéral xam nga le paradoxe libéral mooy lan mm-hmm. mooy tout ce qui est bon économiquement jugé dangereux politiquement pour des raisons sécuritaires dañu nekk dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations tey tukki la ñu wax moo yore àddina dama wax ni y a une mondialisation des flux migratoires chaque toutes les régions du monde tey sont soit concernées par le départ l'accueil ou le transit de ces personnes au profil de plus en plus diversifié tey am nañu wax ni ce ne sont même plus les plus pauvres qui migrent ñëpp ay tukki tey y a des ingénieurs am na jigéen il y a une féminisation des flux migratoires quarante huit virgule six pour cent des migrations internationales sont dirigées par sont concernées par les femmes am na xale kon tey ñun dañu ne il faudrait un mode de gestion beaucoup plus élargi que ñun li ñu gis tey était exclusivement réservé à l'Europe mais les dirigeants européens ñoom dañoo jub ñoom dañu foog ni crise migratoire wala flux migratoire xaalis moo koy réglé loolu moo tax ñuy dugal xaalis te du mujj fenn. Mhm. parce que parce yaa ngi doon wax ni lu toll ci euh, euh, cent dix huit milliards yu ONU Union européenne joxe ci émigration clandestine dañ ko détourné. non loolu loolu ëpp na ko loolu loolu fan loolu temps yi la yàggul. waaw euh, fan yi j'en profite pour remercier pour pour nuyu Alioune Badara Cissé. Mhm. moom moo organisé benn conférence. Mhm. invité des homologues médiateurs man mii maa doon animé conférence. alors bi wax bi bëree la représentante de l'Union européenne moo ñëw mu ne ma monsieur Seye jox ma sa email dinaa la yónnee li ñu ci dugal yëpp pour wax la ñu def nañ ba sonn bi ñu la yónnee document bi mhm. bi ñu ko xaymaa avec des programmes en cours alors ëpp na cent quatre-vingts millions d'euros mu nekk cent dix-huit millions de francs CFA milliards mhm. xaalis boobu mu ngi fii ci dëkk bi am ñu ko dox moo tax ma ni dans les perspectives de solution on ne peut avancer si on ne fait pas une évaluation de tout ce qui a été injecté comme fonds dans ce pays-là dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine si que sinon duñu avancer parce que képp kuñ fi joxoon xaalis ci affaire immigration war na mën a taxaw rendre compte la notion d'imputabilité doit être établie dans ce pays-là parce que sinon on n'avance pas mais xaalis boobu bu fekkee union européenne mi ngi koy joxe maanaam ci yan norme la ñi ñi nekkoon bitim réew ñibbisee la ñuy accompagner si ay projet wala jeunes yi fi nekk la ñuy euh, financer ay projet pour ñu toog waaw parce que tey xam nga euh, xam nga xam nga xam nga xam nga sénégalais yi ñu ngi leen di rapatrier Mm-hmm. mais bépp rapatriement boo gis dafa ànd ak ay insertion économique. comme comme comme comme si naka expliquer Boubacar. waaw mais xam nga sooy rapatrier xam nga xam nga Europe tubaab du defee noonu gis nga l'aide au développement est soumis aujourd'hui à tout la à ces conventions là ñoom ñu bañ ko wax mais loolu moo am mooy suñu dee jël gisoo ñu ngi fi rapatrié woon en deux mille cinq deux mille sept mais ñooñu xaalis lañ leen joxoon euh, gisoo fële lañ leen wàcce mooy li fi indi loon coow li ne cent lañ leen jox ak dix mais rapatriement boo gis dafay ànd ak des projets d' insertion socio-économique pour ñooñu am lu ñu jàpp pour mën a jëlaat la laajteel ni ñu fi rapatrié bu ñu eggee aéroport la ñu gis ñi leen ñi leen recevoir woon xaalis yooyu fu ñu dugg c' est des programmes que l'union européenne et les bailleurs de fonds bu ñuy jox état yi pour le retour de ces migrants mais malheureusement ces ces fonds rentrent dans des tonneaux sans moom la wax tey ñu ne dans les perspectives. Hmm. il faut que mu am évaluation de cet argent-là sinon on n'avance pas parce que tey kon keneen ku mu joxaat xaalis bu suba mu lekkat ko ñu bëri ñu ñu wax te ils sont responsables de ce qui se passe ñoom xam nañu ñun xam nañ leen ñoom xam nañ ñu xam nañ leen moo tax bi wax di commencé ku nekk yaa ngi di wax parce que xam nañ ñu xam nañ leen mais xoolal programme yi fi nekk xoolal agence yi fi nekk yëpp mais le président de su jógee tegaat beneen affaire. tuddeewu ko agence mu ne xaw ma lan c'est parce day bëgg a agence ça veut dire que fi nekk ils n'ont pas fait le travail il faut les dissoudre nous avons demandé au président de la République de mettre une agence autonome kon gis nga agence yi fi nekk ne dañuy utal ndaw yi xëy dañ leen di financer c'est des agences yoo xamante ni seen bopp leen tax a jóg donc dañu détourné xaalis bi mais efficacité bi su amoon day kumba tey waalo du aaye ni kon affaire bi wàññeeku mais c'est tey d'accepter qu'il des problématiques liées à la jeunesse loolu nañ ko d' accord ñu avancé ñu doog teg yeneen matukaay président bi dina ko lii kat la ñu xalaat soo ko tegee parce que tey xam nga mbéy kumba dafa am lu am. Mhm. le droit à l' emploi dafa nekk ci constitution sénégalaise gis nga économie pour mu dox gis nga kaay moo wax la tey nag la solution qui va faire avancer le Sénégal. waaw mooy lan parce que wax nañu lépp nous mhm. allons dans les perspectives de solution. exactement loolu wax di mooy lan. Mhm. il faut agir urgemment xam nga tey. Mhm. gis nga l'emploi et l'employabilité sax laay wax mooy doxal Sénégal nañu gis nga gis nga gis nga s'il y a économique qui absorbe toutes ces problématiques la dëkk bi day dox. Mhm. le secteur informel ak yeneen ak yeneen bu ñëpp bu nit ñi liggéeyee boo demee ci marché bi jaaykat bi dañuy jaay kii defar pneu bi pneu yi day pneu day jaay pneu ñuy jaay fële lépp dox jaaykatu jën bi léppay dox ba nga xam ne l'économie tourne c'est-à-dire que il faudrait restaurer cet espoir par la création d'emplois quand je dis d'emploi emploi des emplois yoo ne c'est des emplois décents pour que ni ñi mën a am ce qu'on appelle mbégte l'espoir ni mu di wax mbégte il faudrait refaire renaître mbégte boobu il faudrait des perspectives heureuses donc tey le défi c'est la création d'emplois su ko defee économie bi day tourner il faut redynamiser le secteur informel quatre-vingt pour cent de la population il faut les redynamiser maintenant nag tey loolu pour mu am il faut que ñu collecter des informations xam ni ñi xam li ñu bëgg il faut des études pour collecter pour xam et nous nous proposons au chef de l'État euh, dans chaque commune goxu Sénégal bu nekk mu am ce qu'on appelle des bureaux euh, des offices Euh, public de l'emploi de l'État bureau public de l'emploi de l'État loolu il faut mu taxaw loolu suñ ko taxawlee par exemple Pikine mu am ko xam nga ñoo fay ñëw les gens de Pikine yaa xam entrepreneur ma yaa xam jeunesse la yaa xam loo mën ci doon nga ñëw foofu enregistré ñu xam lan mooy seen bébét nga dem Géejawaay nga dem daf ko nga dem Malika nga dem Casamance nga dem Goudomp Là, sa te permettra de faire la cartographie des zones de vulnérabilité pour lutter contre l'immigration clandestine xam nga gox bu nekk bii mooy lii mooy problématique bi bu boobaa nag agence bi ñu la wax ni ñun moom la ñu proposé chef de l'État mooy euh, une agence autonome reliée à la présidence et chargée des migrations internationales ou bien un ministère plein chargé des migrations internationales parce que migration dafa transversale lépp ngi même la santé bi ñu wax nii gis la thématique migration pandémie bi bi so bi bi pandémie bi commencé dama leen ni woon le principal vecteur de propagation de cette maladie est la migration di fait de la mobilité feebar bi ci tànk migration lay dox donc donc agence yooyu nag ñooy def seen fiche technique les les les bureaux là enregistré nañu ils ont eu des informations xam li nit kii lan mooy mbébitam xam ci léegi nag ñoo transmettre en fonction de ça nag l'État dans ses démembrements fexe ba satisfaire ces demandes là mais là pour sa il faut se mettre à l'heure du numérique foofu la ñu tardé le Sénégal devrait mm. devrait se mettre à l'heure du numérique nous avons de grands informaticiens boo demee à l'université il y a de grands informaticiens le professeur Ibrahima Niang ak ñeneen ak ñeneen il faut prendre ces gens là ñu joxe pour un Sénégal bu boobaa lépp yomb lii mooy perspective de solution mais tamit euh, beneen ponk bu am solo Boubacar Seye dinañ la ci laaj euh, moom mooy euh, sénégalais les sénégalais de la diaspora naka la ñuy dundee li nga xamante ni moom mooy Covid 19 bi la. waaw gis nga xam nga tey dama la wax keroog nii la nañu def attention gis nga émigration clandestine bi ñuy wax nii. euh, il y aura une intensification de ces flux migratoires clandestins sous l'ère post-Covid dañ gën a yokk parce que tey le Covid-19 dafa indi des risques de récession yu yu récession économique ci dama wax ni l'ère post-coronavirus sera marquée par des tensions géopolitiques liées à l'immigration xam nga li tax euh, boo demee ci dëkk yi la théorie de remplacement moom la ñuy prisé prisé c'est-à-dire que migration remplacement la ñii dañuy ñëw pour ñëw lu fi nekk migration nekkatul pour ñoom euh, une dilatation de l'économie non nekkatul un complément qui entraîne une dilatation de l'économie et de la société euh, tey euh, dafay am l'échec un renforcement de l'échec de politiques d'intégration structurelle et culturelle structurelle moo yaatal bi ñu war a yaatal gan ñi ci wàllu liggéey ci wàllu am-am dañuy bunt xatal gan ñi moo tax boo demee tey ci yenn dëkk yi tey yaa a un coût social et ñu ci bëri tey liggéeytuñu am na ku ma wax keroog immigré yi ñoo doon ñoo doon yónnee waaye léegi dañ leen di invité. Mm-hmm. dafa feeñ sax ba ci transfert de fonds yi y aura une perte de dix huit milliards de francs euh, dix huit milliards euh, euh, ci deux mille vingt bi. Mm-hmm. en Afrique. donc donc donc ñi ci bëri ñu ngi takk seen liggéey donc euh, tey euh, li muy indi euh, ci diaspora bi ay difficulté parce que wax naa la ko sànq Europe dafa wax ni on lutte contre le populisme parce que tey xam nga les dirigeants européens dañu échoué dans leur idéologie classique xam nga tey la marchandise électorale c'est la migration et l'islam mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique gis nga France ni muy doxalee yeneen dëkk yi ñoom ñëpp dañ koy def dafay am l'effet domino lépp pour xeex migration parce que tey euh, amatul offre politique donc on se sur ces deux là la migration dafa nekk euh, le contraire ñoom dañu bëgg a tabax la migration comme le contraire de l'identité loolu moo indi tey les espaces de repli identitaire en Europe alors que dañu nekk dans un monde mondialisé ñoom dañu bëgg tey euh, gisoo il parle de subversion culturelle il parle d'évasion alors que ce n'est ce pas le cas donc loolu moo tax euh, immigrés yi nekk les les foyers d'immigration dañuy am ñoom ñëpp ay problèmes sous l'ère post-coronavirus parce que tout simplement tey euh, Europe dafa échouer dans l'intégration culturelle et structurelle de ces migrants te fu amul intégration on ne peut pas parler de migration et l'intégration moo war a nekk euh, euh, benn rapport euh, boo xam ni moo war a am entre migré yi immigré yi ak autochtone yi dans une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance mutuelle loolu moo amagul moo tax ni fàttali les les les les européens xëy na seen xel dirigeants yi fi nekk dañu leen war a interroger waat sur leur histoire euh, l'Europe a eu à immigrer dans les moindres mesures en Afrique et aux États-Unis boo demee dëkk bu mel ni États-Unis euh, immigration moo ko lal les premiers immigrés étaient des Européens ils se sont établis en 1606 à Jamestown gis en 1662 après les guerres crowelliennes de cent 1649 1661 euh, la la couronne britannique pour mu encourager l'immigration dafa tegoon benn système qu'on appelle indented servants moom mooy les prisonniers les repris de justice le criminels dañ leen yël pour ngeen gagner seen liberté hein da ngeen di tukki aux États-Unis gis nga ni gaal yi di këppoo tey noonu la gaal yi doon këppee gis nga en 1741 dafa amoon benn bateau irlandais boo xam ne 60 personnes ñoo ci nekkoon. cent six personnes ñoo ci nekkoon bi ñuy egg si soixante moo ci des quarante six yi dee nañu dañoo daa leen dem ba nga xam ni ñi nekk ci gaal gi dañuy xiif ba dañuy jël néew yi di ko lekk cannibalisme en dix sept cent cinquante deux benn bateau hollandais boo xam ni pratiquement vingt et un personnes moo ci des alors que bi muy def bi muy embarqué trois cent quarante moo ci nekkoon donc loolu moo tax tey jii soo demee aux États-Unis euh, ci yenn dëkk yi Euh, boo jëlee euh, par exemple en mille neuf cent vingt cinq après l'achèvement du canal Erie boo xoolee gan yi woon en mille huit cent vingt cinq gan yi ñoo la majorité dans les pays comme New York San Francisco San Francisco New Jersey et autres nga jël la Pennsylvanie en il y avait 18 communautés allemandes en 10, 10, 10, 1780, il y avait plus de 30 communautés. Les Schwenkfelder, les Damish. Mais bi ñu ñëwee ñoom dañu waxoon ni dañuy conserver seen langue parce que 33 pour cent de la population de la Pennsylvanie ay allemand la woon. al anglais yi ragal une germanisation de la Pennsylvanie ñu créé ay loi donc juste pour wax la ni rek ñun ñun ñu doon tukkee nii tey ñoom noonu lañ doon tukkee mais nag seen dëkk yi dañoo liggéey ba nga xam ni à partir de 1900. immigration yi doon jógee États-Unis dafa wàññeeku parce que Europe dafa tabax dëkkam kon tey da ma wax la ci lii ne le rattrapage économique est bien possible à condition que Afrique tamit ñu d' accord tabax seen Afrique ñu d' accord liggéey parce que boo xoolee dëkk yu mel ni Espagne na ak Italie il y cinquante ans ñoom ils étaient de terres d' immigration tey ñoom ñoom dañoo xeex ba nekk ay terres d' immigration donc loolu moo tax ni tey euh, je crois que au regard de tout cela ñun war nañoo mën a xoolaat suñu bopp ñu xam ni le défi en Afrique c'est le travail le défi en Afrique c'est faire en sorte que doomu Afrique yi gëm ni ñoom ñoo mën a tabax Afrique mais nag si kaw mu am cette volonté politique si kaw mu am cette vision altruiste humanitaire et futuriste des dirigeants africains envers les générations voilà dernière question xam naa foofu la ñuy jeexalee Boubacar Seye. Euh, di euh, sénégalais yi nga xamante ne souvent dañuy faatu bitim réew. Euh, mais gis nañ ni pour seen koor yi ñëw c' est tout un problème souvent famille yi du ñu am moyen pour le rapatriement des corps. lu ni mel lan nga ñu ci mën a wax. waaw j' en profite pour wax la le cas Souleymane ñaxate mhm. donc vraiment ma lay remercier sax ci émission bi parce que tey mhm. nous avons un corps en souffrance le mhm. corps de Souleymane Niakhaté mu ngi décédé depuis euh, le vingt-huit février le vingt-huit novembre bi Barcelone ba léegi corps bi ñëwagul euh, parents yi amuñu doole ki man la ñu ñëw man it awma doole nous avons eu à interpeller le président de depuis bi mu gaañoo euh, amuñu woon réaction Euh, ci biir famille bi ñëwaatee ma ni leen on passe au plan B le plan B consiste à ouvrir benn levée de fonds ma ni famille bi da ngeen di ubbi seen compte bancaire mhm. ñu wër fu nekk yëgal ko Sénégal ak diaspora bi nit ñu baax ñaa ngi fi ñu jàpp ci parce que yaa ji mag la mu ngi jooy mhm. bis bu nekk ni indil leen ma Souleymane ba démb hôpital bi dañuy woo ñu ne dañ koy enterré treize heures dañ ko jox ñi fa nekk foofu ñoom dañ mënatuñ ko wéree mhm. yàlla moo ñu dimbali ba ñu wax ci RFM Euh, ci ngoon bi le le de cabinet du ministre euh, Abdoul Aziz Mbaye mhm. woo ma ni ma naa ko expliquer ma expliquer ko mu ne ma yónnee ma document yi ma yónnee ko le certificat de décès et la et la préfacture estimée à six cinq mille huit cent soixante dix virgule soixante mhm. moins de six mille euros donc avec trois mille neuf cent trois millions neuf cent mhm. corps bi day loolu démb la. Mhm. ci la ñu wootee wax ni bu kenn suul néew bi nañu xaar état bi on espère que d'ici quelques jours la situation va se décanter le plus rapidement possible. Mhm. kon ñu ngi toog nii di xaar pour néewu Souleymane ñëw. pour répondre que li nga wax nii euh, man dama jàpp ni gàcce la sax pour ñun ci diaspora bi ñu taxaw tey di ñaan keneen mu ñu indil na néew. nous sommes plus de trois millions approximativement dañu waxoon ni bu bu ku nekk joxee un euro benn néew dootul fanaan àll on on ne peut pas avoir ñaanuñu yàlla am trente néew par année si vous faites le calcul xaalis boobu dinañ ci def yeneen projet de développement ba nga xam ni benn immigré dootul tumurànke parce que dama jàpp ni euh, li ma xuri rek moo wet ma dem ba Euh, ñi fi ñi fi gaañu ñëpp dañu bàyyi famille dañu bàyyi njaboot njaboot googu ñu ci bëri dañu tumuraanke Souleymane bàyyi na jabar ak ñeenti doom ak yaay ju màgget du feebaram joo xam ni moom moo ko yore woon muy jooy kon maire boobu ñun war nañ ko mën a prendre en charge ak keneen keneen <coughs> excuse lii la ñu wax ñun ci horizon sans frontières <coughs> malheureusement euh, ñi yàq dafa bari gis nga loolu soo ko waxee am na kuy nekk ci suuf di yàq li ngay dem mais dama wax ci horizon sans frontière yàlla def ma ci dimbali ay nit ñu dëggu gis nga le directeur financier et administratif il tam Tamsir Souleymane Ba mu ngi dëkk Italie euh, xëy na ñëpp ñu ma fekk ci Sénégal parce que ñun ñëpp dañuy far ngiru man de ngiru naa doy na dafay toog ba mu ne ma président fit bi nga am man aw ma sinon kon ma ñëw fekk si la mais gis nga ñooñu du ñu ay nit yu caaxaan ba nga xam ni man su ma doon caaxaan sax ñooñu su leen gis xam ni caaxaan dafa jaar ci ñu jaar ci mais la diaspora sera organisée ba nga xam ni néew dootu fi taxaw ci te ku fi taxaw ñu jàppale la mais malheureusement ñëpp dañuy taxaw di ma seetaan mais ku am soxla jël sa téléphone wër Boubacar lii rek laa ci mën nga wooma ma wax pour mbir mi changé donc le cas de ces problématiques la moom laa lay tontu rek tey Euh, nous relançons un élan de solidarité à raison de 1 euro. Ça sera géré par Tamsir Ousmane Ba directeur administratif et financier de de Horizon Sans Frontières moom day bàyyi boobaa lépp lu muy def ñëw fekk suñu fii bu boobaa leneen ak leneen dinañ ko def di dinañ ko am euh, des habitats sociaux dinañ ko am nous avons de grands projets mais ci kaw ñu jàpp ci ñi ñu ci waroon jàppale mooy diaspora bi mais malheureusement diaspora bi dafa bëri ay tendance ba nga xam ni doo dem duma dem moo fi nekk malheureusement loolu ci li ñu gën a tardel moo ñu téye mais nag mm-hmm. voilà voilà Boubacar kon ñu bàyyi la nga tàggoog auditeurs yi waxtu bi xooj nañu <laughs> waa waa dëkkumba xanaa xanaa remercier la rek waaye kenn kenn kenn kenn kenn recevoir ma nag loolu moom <laughs> mu leer daal Macky Sall moom <laughs> dalalu la leer na kenn kenn nee na Macky Sall dalalu ko waaw kon leer na di la remercier. ah remercier toute la presse sénégalaise. Euh, di remercier Rewmi FM damay wax ni yàgg na euh, pour votre soutien constant et sans intérêt dans ce dossier migratoire la Mbagnick Mbagnick Mbagnick mi ko moom sagal na ma fi ba 2016 j'ai été nominé au corridor africain de l'action sociale. Mhm. loolu c'était une reconnaissance sociale. dëgg la remercier Mbagnick Diop. Mm-hmm. may remercier di leen ñaanal ci ci réew mi FM la ngeen bëgg yéen ko xam yàlla na yàlla daf mu nekk rajo yi gën a mag ci àddina bi. amiin amiin amiin voilà di la remercier parce que yow aussi euh, sama xarit nga. dëgg la loolu dëgg la lépp dëgg la di la ñaanal aussi di nga bëgg yaa xam yàlla na ko yàlla defal. Ah. di baalu ak ñëpp aussi parce que souvent le débat est très passionné mais. mais comme ni nga koy dañuy ñëw ci man bay jooy te mënuma dara donc souvent damay day nekk ci man may baalu ak yëpp aussi waaw. ñu ngi koy remercier bu baax a baax bu Boubacar Seye euh, ci disponibilité am saa bu ñu ko soxla gis ngeen il est très disponible pour la rajo et pour tout la presse euh, ñu koy remercier bu baax a baax ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ni indi woon na ko ci wàllum immigration euh, clandestine ak lépp rek lu laal wàllum migration ak jafe-jafe yi kon mu ngi noonu ñu ngi leen di remercier yéen tamit suñu auditeurs yi. ànd ak ñun euh, chaque samedi de 10 heures à 11 heures ci seen émission euh, toute la ville en parle euh, émission bi mën ngeen ko dégluwaat rattrapé wu ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nekkoon ci machine bi ndey Comba Moreau comme di leen wax samedi prochain 10 heures jàpp 11 heures ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf